voilà chers internautes bienvenue encore une fois dans votre nouvelle émission Flash avec Flash avec nag tey ñu ñu am mooy ay ndaanaana sont des frères macha allah ñoom ñëpp ñu booloo nekk même groupe muy Takayfa donc ce qu'on va faire c'est regarder le spectacle daal di dellusiwaat léegi ci li nga xamante ni mu di waxtaan bi Voilà, chers internautes, ah, je suis bien entourée avec euh, le groupe Takaifa. Ah, donc, euh, les meilleurs frères, moi, bah, les nous nous allons présenter au Bougao. Euh, après, ce qu'on va faire, c'est passer aux questions. Atta. Salam alaikum, wa le CV, man le Fallou Keita, rappeur groupe Takaifa. Jaajëf, rafet na. man le Ibrahima Keita, batteur du groupe Takaifa. C'est le TV salaamaaleykum waa Leuz TV man la Jacques Keita chanteur du groupe euh, Takeifa du Sénégal. bonsoir chers internautes euh, c'est Maketa bassiste et vocal du groupe Takeifa merci beaucoup. salaamaaleykum man la Cheikh Keita guitariste Takeifa. merci. voilà donc comme vous le savez ah euh, ñu ngi nii maa ngi nii ak waa Takeifa donc Jacques di la laaj instant bi fan ngeen toll ci projet yi ak lan ngeen di waajal. waaw lu ñuy waajal bo euh, dafa tombé sax tey ngeen ñëw fii euh, fekkee suñu spectacle ndax dañuy nekk liggéey ci benn projet boo xamante ne ça fait maintenant je peux dire deux ans ñaari at ñu ngi liggéey ci projet boobu noonu muy euh, Takeifa veut sortir son troisième album wax exactement kañ mais depuis deux ans ñu ngi ci nekk di liggéey on fait des spectacles et la plupart dañuy jël au moins deux à trois titres yu war a bokk ci album bi di ko jouer pour xool lan lay joxe. côté, côté, côté, côté live comme côté studio. Donc je peux dire le, pro le projet le plus urgent et le plus important aujourd'hui de Takaifa, c'est de sortir notre troisième album pour très bientôt, au moins au, début, Inch'Allah. Donc je veux savoir comment le groupe s'est fondé parce que là on dit que vous êtes des frères machallah ah euh, donc nit ki mënoon na nekk ingénieur ki nekk li ki nekk li mais vous tous euh, ngeen daal di nekk si même groupe comment nan la loolu amee waaw ba léegi am na ay ingénieur ah kii artiste peintre la kii président de l' association Kër Albinos man euh, j'aime bien le business je suis je suis je suis dans un peu de petits trucs euh, lui il est en même temps dans plein de trucs Fa Ibrahima aussi il aime bien euh, les voitures donc donc à côté de la musique aussi chacun s'évolue essaie d'évoluer dans autre chose mais la musique c'est quelque chose qui est venu très naturellement chez nous donc d'abord nos parents c'est des grands mélomanes donc euh, ñoom dañu mës a dañu yar suñu suñu kër ñuy déglu musique vraiment de la bonne musique donc c'est foofu nañu jëlee ñun amuuru def musique benn par benn nag man maa njëkk commencé def musique après dans la famille après Cheikh fekk si ma euh, ça c'était en 80 j'ai commencé ma ma carrière en 94 donc euh, après 5 ans 6 ans moom mu fekk si moo di jouer guitare may woy donc 5 ans après Ibrahima ñëw commencé toog ci batterie bi te loolu yëpp étape par étape la nekkul loo xam dañoo toog. benn mu nekk benn projet familial ñu naan non dañuy def benn groupe non yàlla moo dogal ku ci nekk du jotee rek da ngay ñëw dugg jël benn instrument joué nekk mu nekk sa place. d'accord mais est-ce que yomb na ah parce que tout le monde sait que nekk ay frères moom nee nañu bëñ ak Lamine ñoo dëkk donc euh, parfois kii xëcc fii non tu es le grand frère comment ça se passe complicité bi ñuy gis nii est-ce que réellement moo nekk ci yéen wala am na leneen. non complicité moom moo am ndax ñun ñoo bokk. ah mais bokk bi aussi am na avantage muy lan muy nañu mën a waxante dëgg hmm? du méttee wala yenn problème yi lu mu bon bon nañu mën a toog xoolante ci biir bët waxante dëgg parce que ñoo ko waa sa yow de donc loolu avantage la amul nag beneen man gis gisuma gis ma ci inconvénient lu dul yenn saa yi dina jafe dina difficile mais loolu yëpp ay mbir la te àdduna noonu la maam même duñu bokkee ndey ak baay sax ku ci nekk am na sa caractère bu wuteeg sa morom te yaakaar naa loolu aussi richesse la dans une famille richesse dans un groupe avant même de parler euh, bépp groupe bu rek ay frère ngeen parce que musique doo ko bokkee doo na ko di def rek ku ci nekk bokkul ak sa morom caractère comme ku ci nekk bokkul ak sa morom instrument bi ngay joué donc caractère yi bokkul donc foofu rek exemple rek pour wane ne bien vrai que y aura des parties ou des coins yoo xam te ne on va pas on va pas se comprendre on sera pas sur la même longueur d'onde mais là c'est strictement professionnel léegi du ñu génne ci cadre professionnel bi on est des frères on peut se tutoyer on peut se dóor daaxee on aime bien faire les choses euh, professionnelles. voilà le travail c'est le travail donc li may def mooy jël Mama Keita ah, mu wax bu gaaw ci li nga xamante ni moo di lutte bi muy def ñëpp xam nañ ni que macha allah euh, tu es très connu ci lutte boobu mu bëgg nga avancé ci tuuti. bon dafa nekk euh, du sama lutte je dirais que la lutte du du groupe Takeifa parce que Takeifa moom moo créé bi. depuis trois ans ñi ngi ñi ngi ci bi di di créer ay activités. di dem surtout ci terrain bi pour xool lan la albinos yi soxla ñu taxawul leen ci bépp fànn boo xamante ne bu fekkee ci fànnu santé la bu fekkee ci niveau éducation la bu fekkee ci niveau assistance sociale la depuis trois ans ñi ngi liggéey te ñi ngi bëgg def ay projet yoo xamante ne bëgg nañ ñu gisee albinisme neneen à ce que nuñ koy gisee actuellement fii Sénégal d'accord donc euh, seen album yéen a ngi koy waajal euh, donc di leen euh, wax maa ngi dégg seen manager bi moo wax da ngeen di waajal tournée ma bëgg ngeen wax ci bu gaaw rek. waaw tournée xanaa bu ñu nee tournée lu muy demee kon tournée acoustique lay doon wala soft quoi en du nekk tournée bande band bi nga xam ne groupe déplacé wu. parce que jamono yi comme ni mu demee ni ko Jacques waxee dañu nekk si album bi donc toujours bu fekkee tournée la Jacques mooy dem wala Cheikh ànd am ku def quelques mais du nekk li nga xamante ni dañ ciy dóor à à bloc quoi donc euh, li may daal di def rek mooy voici le groupe Takay li ñu am ci minute bëriwul donc ñëpp ñu mën a wax l' essentiel c' est que gis nga leen ah c' est une bonne ambiance macha allah spectacle baa ngi ñëw léegi donc di leen wax rek euh, Jacques nga tëj ce mot de la fin ba pare di leen wax euh, ngeen wax ci Leuz TV aussi c' est une émission qui a passé sur le net donc ma bàyyi la yow nga tëj ah. ce mot de la fin au nom de tout la Takaifa. Voilà. en fait, le mot, le mot de la fin, c'est toujours de parler des projets de Takaifa. Bah, de dire qu'il faut, on, on s'adresse à notre public, que l'album sera bientôt disponible à partir de l'année 2016. Ce sera un album pour le public encore, pour notre public, nous sommes en train de travailler là-dessus. Et dire aussi que Leuz TV, nous suivons Leuz TV sur le net, man personnellement, et voilà quoi. Nous sommes au courant, nous vous suivons. Donc, et nous vous encourageons pour tout le travail que vous êtes en train de faire. Merci, Merci beaucoup, Diadio. Bonne chance et bon courage. Merci, à vous. voilà gis ngeen li nga xamante ni moom lañ fi def ci spectacle gis ngeen li nga xamante ni moom le public bi bëgg ñu daal koy joxe ba mu neex ci acoustique ci lépp li nga xamante ni mooy bëggal seeni fans nii la woon naa avec le groupe Takayfa gis ngeen tamit message bu fort bi ñu lancé ñoom ñëpp nee nañu ce sont des frères avant tout complicité day am avant tout tamit dañuy waxante dëgg ak lu mu mënti am donc flash avec nii lay demee di remercier bu baax sama ñaari caméraman yi comme j'ai l'habitude de le dire Bibo bu baax di leen jaajëfal yéen mbokk internet yi di leen wax leen ko raté à très bientôt